surpresseurs yi ñoo ko fi indi parce que surpresseur soo ko defee ci réseau yow da ngay am ndox ñi nga ñi nga dendal duñu am ndox surpresseur soo koy def da ngay wut benn bassin soo utee bassin nga root bassin ba pare surpresseur bi jël di distribuer sa mais fii liñ constaté mooy ñoom dañuy dem ci robinet bi nga xam ne moo jógee directement ci réseau bi ñu installé fa surpresseur soo ko defee ci benn quartier nag yow yaay am ndox ñeneen ñi duñu am ndox pourtant soo installé wul woon surpresseur nga bàyyi noonu lu mu néew néew ñëpp dinañ am ndox ku nekk dina mën a am duy bassin xam nga Touba aussi nekkul dëkk bu yomb ndax dëkk dëkku kilifa la ndax bala nga koo ba nga cee mën a jël mesure il faut nga waxtaan ceeg ñu ñu ci war a waxtaan yëpp am am ci am ci ndigal pour mën ko interdire